ñu fexe ba assainissement bi pare. yow la mairie. mais ah non du mairie bi état bi koy def. waaw ah, d'accord état bi waaw. voilà ñu aussi ñu yokk fexe ba yokk mën a améliorer cadre de vie population. ñu ngi ko a def parce que ndar lu ñu fa def. depuis mhm. boobu léegi. Mhm. mais kenn mosu ko fa def. waaw mais mais kenn mosu ko fa def. loolu aussi euh, loolu man daf may jaaxal parce que ndar jamonoy Abdoulaye Wade lu toll ci juróom-benn ministre daanaka doon na fa ci ci ndar rek. Euh, kon boo ma nee def nga fa loo xam ne kenn mënu ko fa def loolu jaaxal na ma benn ñaareel bi aussi mooy monsieur le ministre Mansour du yow rek yaay cadre a Saint-Louis hein ah Auxerre kay bëri non bëri na cadre <laughs> c'est-à-dire pourquoi bu chaque gouvernement ñu ne Mansour Faye ci biir gouvernement bi alors pourquoi loolu aussi <laughs> du yow rek yaa fay cadre foofu ndar du yow rek yaa fa yaa fa lan moo am aussi tànnuma sama bopp. non non xam nga ni kenn xam nañu ne tànnuloo ah, sa ah, bopp te bëgguma nga la ngaa mu ci loolu aussi. non tànnuma sama dama ni c'est-à-dire loolu loolu dafa yéeme c'est-à-dire mënuñu comprendre ndar nga xam ni au temps de Wade plus de juróom benn ministre daan na fa génn ñu dem ba léegi benn ministre lay génn te kenn lay doon à chaque fois te Mansour Faye la. waaw mais tànnuma sama bopp man président Macky Sall moo tànn tànn ma comme ministre comme nu mu tànnee ay ministres yeneen dëkk ensuite la la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de Saint-Louis. mais ma may la responsable départemental ànd ci ay collaborateur ñoo xam ne ñoo ànd di liggéey man rek mënu ma def dara bu yemoon ci man rek duma def dara mais j'ai de vraiment de très bons collaborateurs ñu ànd liggéey te te yamale suñu bopp. Mm-hmm. di sacrifié wu pour population bi. donc loolu moo am. Mm-hmm. équipe boobu mais par exemple peut-être mënul nommer ñëpp. xëy na loolu moo tax. mais monsieur le ministre mais loolu dafa yi sax boo demee ba sax nga nga nga xalaataat nga ne mais attends Mansour mi kat duggoon na mais au moins beneen cadre mi ngi ndax ñeneen a ngi fa. waaye xëy na bu ëllëgee xëy na loolu am xam nga wërsëg wërsëg yàlla wala eh, suñu borom moo koy joxe suñu borom moo def président Macky saal tànn dàquma jàng kenn gënuma kenn ëppaluma kenn gënuma liggéey kenn. mais suñu borom moo def président Macky Sall ni ma ah yow mu nekk le responsable départemental. non suñu borom mi def nga nekk gorom. déedéet du question gorom. borom mi def nga nekk gorom. non gor macha allah man kay. waaw sama goro la. waaw d' accord. Euh, non non mais mooy sama sœur. man maa ko may soxna. ci wàllum ngorom may kilifaam loolu dëgg la. Mhm. c' la réalité mais du loolu ba muy wootee. mais ñun ñoo jëkk jóg mbokk yee jëkk jóg xarit jëkk jóg ñu tax ñoo taxaw képp ñoo taxawal parti bi taxawal coalition bi nekk ci di liggéey bu fekkoon peut-être ñu ma àndal d'accord ñoon ah, ci liggéey façon liggéey bu ñu liggéey xëy na tey ñu du ma nekk responsable fële laay teg mais ñëpp ci ànd ñu ànd nekk benn assain bi benn say moo fa nekk koo mënti woo comme responsable en tout cas une bonne partie quatre-vingt-dix-neuf pour cent des responsables mais on est ensemble on travaille di indil askan bi di leen amul njëriñ parce que loolu moo am solo liggéeyalu suñu bopp mais askan bi la ñuy liggéeyal. Mm-hmm. loolu nag bu président xoolee ay analyse am saytu xool ni ah Mansour lay dénk laay tànn ci gouvernement bi mais te ñëpp kontaan gisoo benn yoon bu mu tànnee am ku jóg wax. gis non mais non xam nga loolu moom doo gis ku kan mooy jóg wax yooyu tam. Ah, doo xaaroo loolu yooyu tam xanaa kan mooy xaar par mu tànn Mansour Gueye kan moo ciy jóg di wax. Sénégal le Sénégal xam ma Sénégal kenn moomu ko. amul ku moom sénégalais le sénégalais est libre. Ah waaw voilà léegi Saint-Louis on est des démocrates. ñun xam nañu état. alors dañu la fi déggoon euh, ci force Covid 19 bi aide alimentaire bi ñu tegoon sa loxo euh, ñu lay laaj ay compte nga ne amuloo ay compte yoo ci joxe mais xam nga di léegi doon bi changé na assemblée nationale mën nañ la ci woo war nga ci mën a taxaw wax ci par force léegi ndax pare nga aussi pour leeral loolu. xaalis bi nga xam ne tegoon nañ ko ci sa loxo. non assemblée nationale bu mu wooyee ma ñëw. kooku amoo ci problème. ok euh, loolu <coughs> yàlla def ma tombé président nommé ministre en charge développement communautaire. Mhm. commissariat à la sécurité alimentaire. nekk nekk sa nekk sama loxo. yàlla mu dara teewul indi musiba muy Covid. Mhm. état bi président de la République jël maanaam ndogal bu am solo pour taxawu askan bi mhm. am ci wàll boo xam ni maanaam sama département ministériel bu ma dénk moo ko doon doxal. mu dénk ñu ko ñu doxal ko amoo déggu kenn koo xam ni remettre na en cause nu ñu doxalee même le général François Ndiaye. man muy def rapport man dafa mel ni nekkoo ci dëkk bi monsieur le ministre. Ah, boo xam nga mu kenn ku ci am bu mu critiqué. non xam nga ni yow nekk kon nekk ci dëkk bi yow ni da nga ko bunkerisé wu. xamuloo li xew non man loolu man. non xam nga xam euh, koo xam ne jóg di wax lu ko neex kenn mënu ko tere mu wax lu ko neex. ku jóg pour jéem a yàq kenn mënu ko tere yàq mais booy wax ci loo xam ni maanaam dafa intéressé sénégal yi da koy teg ci yoon teg ko ci charte mais amul benn détracteur boo xam ne mën na wax jël ci wàllum Covid bi am lu mu ci teg suñu daal président dafa del lu ñuy wax benn maanaam kuréel dénk ko benn général neutre mu doxal ko mais général ba muy def rapport bi. Mm-hmm. ci lu mu wax maanaam ci wàllum aide appui alimentaire bi. processus bi dafa nekk un processus achevé parce que dafa nekkoon maanaam loo xam ni dafa laal secteur yu bëri armée mi ngi ci gendarmerie mi ngi ci euh, maanaam euh, euh, le commandé les gouverneurs et les préfets ñu ngi ci ñun dañoo coordonné te ku ci nekk sëral joué nga ko ci wàllum sécurité maanaam le transport maanaam gendarmerie moo ko assuré mhm. armée moo doon moo resoon l'approvisionnement et la distribution ànd ceeg maanaam les autorités de l'administration territoriale amul. mais nee assemblée nationale bu ñu la woowee. suba loolu leer na. loolu non loolu important ñu ñu dégg ko. te ñoom ñoom ci boppam annoncé nañ la couleur muy les députés de l'opposition wax nañu ne loolu dina leer. kon nañu jàpp ni bu yeboo nga pare ci loolu. suba suba suba. waaw suñu waxee sax maa leen di jot assemblée nationale. d'accord alors monsieur ministre gouvernement bi ñëw na gouvernement de combat la wax slogan slogan c'est-à-dire mais bi nga xam ne moo mujj bat fin bi lan la c'est-à-dire à fin président de la république gouvernement ni combat la dañu bëgg régler problème social bi problème mu dund gi problème mu nangam nangam cest dire lan la ci jublu est-ce que daf ci jublu euh, xëcc troisième candidature wala lan moo am ci loolu parce que ñu bëri loolu la ñu njoxt lan nga ci bëgg lan nga mën wax ci gouvernement non xam nga nañu jàpp ni waaw jégoon ci élection locale en mhm. janvier président jàppoon ni war naa def remaniement xëy na jotu ko def élection législative ñëw ak lu mu indi comme résultat. Mhm. naturellement ak aussi indiwaat premier ministre. Mhm. bu indee premier ministre indi gouvernement bu bees effectivement gouvernement bu bees boobu il faut ñu sol ko. Mhm. pour mu mën a jóg indi ay solution ci lu nga xam ne askan bi moom lay xaar. rawatina dund gi loo may combat rawatina mais mais loolu loolu loolu mais loolu bu yàgg la waroon a doon ah warul doon combat wu fin de mandat combat warul woon nekk combat wu fin de mandat xam nga combat boo nekkee ci liggéey ci combat dañ la koy fàttali rek waaw voilà dañ lay fàttali gën a yabaat ni ko école farlul mhm. dàbbali d'accord waaw nga gën a farlu pour mu indi ay indi ay saafara ci lu nga xam ne askan bi moom lay xaar d'accord donc loolu yëpp mhm. wax nga ko mhm. dund ci c'est vrai gis ngeen euh, semaine bi semaine bi rek président recevoir na les acteurs waxtaan na ñoom et pourtant su ngeen comparer les prix avant 2014 ci maanaam ci bëri ak prix yi léegi yu ci bëri prix yi yokkuwul en réalité. waaye mm-hmm. mais il faut ñu xool lan lay askan bi. d'accord di jàmbat. ok ñu man cee indi saafara. Mm-hmm. parce que toujours été que mission bu ñu jox président de la république.